pour cent alors que la moyenne communautaire mi ko fixé trois pour cent Sénégal nekk ci Afrique de l'Ouest réew yu bare wër que réew yooyu ku nekk gis tey la fa xew ci ñàkk jàmm yàlla bu mu yegg si fii mais loolu war nu mesurer loo sunu responsabilité war nu mesurer loo sunu taxawaay pour que ñu mën a préserver suñu réew continuer muy doon réewu paix réew stabilité wante bu fekkee ni boobu jamono ñoo ngi jàkkaarloo ak benn président de la république bi nga xam ni nëbbu ci dara dafa ni lenn rek mooy yitteem mooy nu mu réduire opposition bi nar koo nar ba mu doon lu néew a opposition yàlla moo ko indi ci réew indi ko ci démocratie dañu naan démocratie comme nooyi la day am ñuy inspiré am ñuy expiré bu pouvoir bi yore inspiration bi na bàyyi opposition bi yore expiration bi loolu mooy tox organe bi mën a vivre correctement mais bëgg réduire l'opposition à sa plus simple expression loolu mën na indi ay jafe-jafe yu mën a ñàkk ndaxte li muy indi mooy jàpp ay opposants di leen tëj jàpp ay opposants naan yaa ngi trouver ay dossiers pour écarter leen jàpp ay journalistes tëj leen di leen bunduxataal ci seen exercice su seen exercice su métier tey jii nii waxuñu dara troisième mandat ñëpp xam ni dañ ko bugg def lu lu mel day nasaxal réew. day indi jafe-jafe ci réew Sénégal ak tradition démocratique bi ñu ko xamal yàgg organiser ay élections bu ñu demee ba chaque élection bu ñu ko jibee muy indi ay tension électorale loolu problème la d'autant plus que àdduna bi yépp danoo yàgg di wax ni Sénégal mooy seen référence kon li wér li nga xam ni mooy jaadu mooy képp ku bëgg bokk ci élection di Sénégalais am nga droit comme ki fi nekk nga bokk ci élection yooyu wër nañu Sénégal Sénégal yi gën a xóot wër nañu diaspora def nañu réew yu bare yàlla yóbbu nañu ba France yóbbu nu ba Espagne yóbbu ñu ba Belgique yóbbu ñu ba Grèce yóbbu nañu États-Unis yóbbu nañu dëkk yu bare bare bare bare fu ñu dem mu toog ak Sénégal yi fa nekk bokk ak ñoom seen mettit ñu lay wax condition yi ñu fay dundee surtout pour am seen yenn papier administratif yi ak bu ñu demee ci consulat yi ak ambassade yi jafe-jafe yi ñu fay am ak des fois ci yenn réew yi ñu leen di ñàkkee respecté